mooy waxtaanee yóbbulu yóbbulu koor euh, duggoon nañ yéen ci waxtaan bu mooy lan mooy ragal yàlla ci lañ waxtaanee woon waaye tey nag li ñuy ñëw ak yéen mooy bañ njëriñ moo ci nekk ak yéen jikko moo ci nekk yi nga xam ne njëriñ yàlla da ragal yàlla dina koy joxe euh, ba borom xam-xam yi gëstoo génne nañ ci fukki jikko ak ñett yoo xam ne nit bu ci nekkee rek mën na feeñ ci moom euh, jikko bu ci njëkk nag mooy man nga yàlla dina la tagg di ci am tagg wa in tasbiroo wa tattaqu wa fa inna dalika min azmi l kon bokk na ci pour nit ki am tagg mooy il faut mu muñ nangoo ragal yàlla euh, ñaareelu jikko bi mooy wa in tasbiroo wa tattaqu laa yadurkum kayduhum shay'an kon su fekkente ne nit dafa am lu muy ragal ci ay noon mu am ak jafe-jafe ay noonam jërul dem fenn nanga ko di sangam defal ma nangam di sangam de am nañu may tëkku nangam ak nangam am nañu pare pour yàqal ma am nañu pare pour jëlee ma sama place am nañu pare pour jëlee ma sama sama sama bureau déedéet yow fexal ba taqwallahi tabax na nekk ci yow bis boo ragalee yàlla képp koy liggéey ku mën a doon duñ la mën a jëlee fi nga nekk fekk yaa ngi doxal lii koy def conditions yi laaj yang koy def teg ko nag te rek tax su boobaa def ci yow ndaxte yàlla nee na képp koo xam ne yaa ngi yàlla say pexe lu ñuy noonu say noonu lu ñuy pexe pexe du sotti kon bokk na ci nit pour mu mucc mooy foog mu ragal te it bokk na ci mooy da ngay am dimbalu yàlla képp koo xam ne ragal yàlla mi ngi ci yow da am dimbalu yàlla yàlla moo ne inna allaha maa alladina taqaw walladina hum muhsinuun yàlla ngi ànd ak ñi nga xam ne dañuy ragal yàlla tey rafetal képp koo xam ne yaa ngi ragal yàlla tey rafetal sa topp yàlla rafetal sa diggante ak nit ñi amul sikk na ndimbalu yàlla dana ànd ak yow ku weddi xoolal diggante di xoolal aw bakar ba mu ànd yonti yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ba leen noonu pexelee mu génn gàddaay ànd ak aw bakar di siddiq bañ ba bi yonente bi daal ne ñeede aw bakar bu mu gisee noon yi mu ne ah ñeede bu ñu gisee gër gis ñu xaw jàq tuuti yonti yàlla muhammad na ko laa tahzan inna allaha maana bul tiit yàlla ngi ànd ak ñun kon nag yàlla ngi ànd ak képp koo xam ne ragal nga yàlla te rafetal yàlla dana ànd ak mooy mooy da ngay si ay jafe-jafe te it di yàlla dina la dimbale da am wërsëg yàlla nee na man ittaqillaa yaj'al lahu maxrajan wa yarzuqhu min haythu laa yahtasib képp koo xam ne yaa ngi ragal yàlla yàlla dina la defal yëral génn waaye boo nekkoon ci jafe-jafe da ci génn te dina la wërsëgal ba nga wërsëg wërsëg wërsëg boo xam ne yow mosoo ko njort kon ku bëgg am wërsëg bëgg a génn ci jafe-jafe fexeel ba taqwallahi tabaraka wa taala nekk ci yow bokk na ci mooy mooy juróom beneen bi ci nga xam ne jikko la ci jikko yi nga xam ne dana koy def ci nit fekkee dafa tax ragal yàlla mooy islaahul amal wa xifraanu zunub say jëf yëpp yàlla dana ko réparé te dana la jéggal say say bàkkaar يلا وجه القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يلا من ين ين يجمع يلا رجال لين يلا تنين وح وح جوب وين كده في يصلح لكم أعمالكم دنا سلل سن جف تي دنا جيجر سن بكار جرم يتابي moy ding ci amé mbeugelu yalla inna allaha yuhibbul muttaqin yàlla bëgg nañu ragal yàlla wax na ne yàlla su bëggee jaam dafay wax jibril la ko bëgg naa diw sàngam na ko bëgg jibril bëgg mu ne waxaloo asmaan nañ ko bëgg asmaan bëgg mu ne mu wàcce xabal ci moom képp ku nekk ci kaw suuf da koy bëgg euh, juróom juróom-ñeenteel bi nag mooy dina am terang dina am teddaange inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën a tedd ci yéen fa yàlla mooy ki gën a ragal yàlla fukkeel bi mooy yàlla dafay yombal say mbir yëpp wa man yattaqillaa yaj'al lahu maxrajan yaj'al lahu min amri yusran képp ko ragal yàlla yàlla dina def sa mbir yëpp dafay am ak yombal bokk na ci tamit ba tey dina may xam-xam man ittaqi ittaqullaa wa yu'allimukumullah ragal leen yàlla yàlla xamal leen kon nit fa ngay dem di uti ay kiis fa ngay dem di uti ay ñaan man damay def examen dama nekk ci ay ay ay combo bu bëggoon nga defal ma kii sama xel mi dafa naqari eh, butu baa ngi noonu ragalal yàlla rek soo ragalee yàlla yàlla xamal kon jërut dem dëgg la nag am nañu yàlla may lool ña sëriñ xam allah waaye nag ñaan dañ koy dimbale nit bu lay defal te fekk yow gëmmoo yàlla toppoo yàlla rafetuloo sa diggante ak sa borom su boobaa ñaan gi ñaan gi du mën jëriñ kon ñaan dafay ñëw pour dimbale jàng dafay ñëw pour dimbale jàmm ci yoon nga ko dimbale waaye ku nekku ci yoon kenn mën laa dimbale kon kon bokk na ci jikko yi mooy il faut nit ki ragal yàlla mën am xam-xam bokk na ci képp ko ragal yàlla di nga da nga am lu ñuy wax xóolulu fil janna mooy di nga dugg aljanna da nga fa des uiddat lil muttaqin loolu la wax nee uniquement pour ñu ragal rek kon yii la yii lañ mën a jàngat ci li nga xam ne lay tax wallahi tabaraka taala di joxe ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla defal dégg topp defal ko oma zalik allah waaye ni ñu ngi bàyyi loo xel ñi nga xam ne ñoo ñu suivre ne numéro baa ngi nii képp koo xamante ni bëgg ngaa leerlu wala ba am nga kii rek nga oo ñu ci numéro bi incha allah lépp luñ ci mën a leer leeral daañu leen ko leeral wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum